bismillah ASSALAMU ñaanal na leen jàmm yéen ñi ni topp ci sunu chaîne YouTube bi di Xalam TV ce qui est notre destin commun à nous Européens c'est la Méditerranée et l'Afrique ay menaces la yu bawoo ci gémmiñu chef d'état-major bu français bi. di wax ne bu ko jaree fii ak fukki at bu ñu gisee ñoom ni seeni intérêt dafa menacé wu ñu gis ni ñoo ngi ñàkk Afrique dana leen jaral jëlaat ay ngànnaay songu si Afrique mën nañu ni jàpp leen ay jaam nanguwaat li ñu yoroon lii mooy ay propos où notre destin se joue. Et donc nous avons en permanence essayé, nous Français, euh, d'entraîner les Européens dans cette prise de conscience de la nécessité d'agir collectivement en Afrique et en Méditerranée. Nous war que nous, France gi nga xam Afrique duñu moo ñu fexe ba conscientiser ñëpp ci ñun Europe fexe ba ñu am far ak woyu boole seeni doole ba saa bu nu bëggee jotaat Afrique ñu mën a daal di àndandoo songandoo xàccandoo waaye dóorandoo ndax fii di Afrique ak Méditerranée saa bu ñu ko ñàkkee rek mënatuñoo am benn avenir benn avenir ci àdduna mbaa ci dund àdduna lii nag mooy tënkub maanaam li mu wax dañu la indil propos yi ci njeextal vidéo bi foofu la lay indaaleele li ko Ibrahima Traoré tontu muy njiital Burkina Faso jamono ji ñu toll. Et je suis absolument désolé de voir euh, l'échec de nos engagements au Sahel et je pense que de toute façon nous aurons à nous reposer la question. Ginnaw biñu ñu les états du Sahel muy Mali Niger Burkina Faso man nañu nitam ñàkk Sénégal mi ginnaw bi population bi jugee xex jaamarloo nguur gu bon gi fi nekkoon légui li leen dese mooy wut ay prétexte ngir ëlëk buñu bëggé def seen cong yoyu man ko def ndax yaangi dégg mu nan la duñu ñu mukk Afrique ay guerre civile di fi am ay jaamarloo di fi am ñom ñu war ko mëna fajj tok toog leen ñuy reyante te moon gu fi am ñom ñoo fi indi. Parce que nous ne pouvons pas imaginer avoir. Euh à nos portes euh, un continent entier euh, qui est en train de, s'enfoncer dans, euh, dans la destruction des, des appareils de gouvernement et des États, s'enfonce dans une forme de, de, chaos, de guerre civile dans beaucoup de pays et de plus en plus de pays, dans des difficultés qui sont liées aux évolutions climatiques, qui sont encore plus dramatiques sur des populations vulnérables comme les populations africaines. En plus, un continent qui connaître une explosion démographique comme euh, auquel continent n'a jamais connu. mon général Binok, dit François Lecointre dit chef d'état-major forfait de France Quand yu mel yi mu nag ñu bare bari Afrique yi nañ ñu ci ñi ñi wax ni ñu xel la bari na ci ñoo xam ni itam dañoo jàpp ni dara xewut kàddu yu mel nii nag bu ñu déggee waxuñu population française waaye ñi nga xam ñooy autorité française yi ñoo koy wax warul nekk loo xam dañ koy bàyyi noonu par hasard waaye dafa war a nekk lu ñu jëlaat jël ko au sérieux ndax France ci boppam ci jamono ji nga xam ne Niger dakkal nan seen uranium bi ñu leen doon jox mën nañu ni gratuitement ci diggante boobu ci la ñu tàmbali di am lu fa mësul am mën nañu ne te mooy ay coupure courant yu tegaloo te bari loolu nag tax na ñu sentir ni itam ñoo ngi daanu bu baax au pala plan international loolu tax na ñu xam ni kon lii li koy saafara mooy bu ñu demee dem ba xam ni mbir maa ngi ëpp yoxo ñu xam ni itam ñii mënatuñ leen a kon la ñuy dese mooy jël ay ngànnaay yi jël ngànnaay yooyu nag. ñu bare bari mën nañu jàpp ni lii général bi wax day tekki ne France day xëy xëy rek indi ab arméem wala Union européenne daal di leen di wàcce fii ci Afrique tàmbalee jël nit ñi di leen jàpp jaam directement déedéet mën na bañ a demee noonu. waaye ku topp sunu video bi nga xam ni moom lañu ñu mujjoon a def wala laataa vidéo bi ñu mujj def mu jëm ci kooku nga xam ni daf ni benn opposant la ci Mauritanie di xamle ni moom bu jëlee réew Mauritanie. lii di Saint-Louis Risatol jàpp foofa di Rosso Mauritanie hmm. mu ni loolu lépp ci euh, fii ñu tuddee Mauritanie la bokk ba ni ñoom ñoo war moom gaz bi loolu noonu maanaam xeeti wax yooyu bu ñu ko jàppee lu woyof nañu xam ne la plupart français yi bu ñu waxee ni la dañu lay attaqué ci yu mel noonu la ñuy jaar maanaam réew mu mu mën a nekk France ak américains yi ak mboolem réew yi nga xam ni ay yàqkat yi àdduna lañu maanaam ay nootaakoon lañu bu ñu ñëwee bëgg laa jàkku nga yor lu mel ni pétrole walla gaz ñetti arme la ëpp lu ñu utiliser bi ci njëkk mooy ñu fexe ba du juboo ak sa askan bu ko defee askan wi tàmbali di la attaqué tàmbali la bañ su ko defee ñu dooleel benn opposant may ko doole waaye ngemb ko ngir mu ñëw toog ci trone bi nekkal leen fii bu fekkente ni xool nañ ni foofu du réussir

qui procède principalement de ce que nous n'avons pas compris que l'action devait être une action globale. La restauration de l'État, euh, le retour des administrations, le retour du développement, et si on n'arrive pas à faire tout ça simultanément et de façon coordonnée, on va à l'échec. C'est ça qui s'est passé. Ce que j'ai du mal à avaler, c'est quand on me dit que c'est l'échec d'une opération militaire. La réalité, c'est que c'est pas l'échec d'une opération militaire. L'opération militaire était une dimension. Je suis persuadé que dans quelques années, je ne sais pas si c'est dix ans ou moins ou plus, nous aurons l'obligation de retourner euh, aider ces pays africains. Ça n'est pas euh, la Chine, la Russie et Wagner qui vont euh, apporter des solutions durables aux très grandes difficultés que connaissent ces pays africains et leur population. ginnaaw bi ñu dugalee vidéo bu njëkk bi dañuy seetlu ni réaction yu bari woon na lool ci biir réaction yi nag la ci gën a ràññeeku mën nañu ni ñett la mooy ñoo xam ni dañu ni kii du toog jërul sonn am ci ñu ni waaw na toog sax waaye bu toogee mënul ci senegal dara ndax Sénégal du seen moroom waaye am ci ñu ni waaw nun de dañoo war a dem sax lëkkaloo ji ak Russie ndax ku mel nii ku ñu ngemb rek lay nekk maanaam français yi rek ñoo koy ngemb lu mel noonu nag moo tax nu di leen jaajëfal ndax seen réaction yooyu moo nu waat ci def yeneen vidéo yu ni mel waaye li ñu leen fi bëgg a leeral rek muy sunu gis-gis nun xalam moo di ni xeeti opposant yooyu ngeen di seen nekkul ni suñu wax dañuy wax par hasard ndax am réewum lëm du xool réew mu ko ëpp doole foofu ci wàll yu bari mu ñëw naa da koy attaqué militairement moo tax saa bu loolu amee rek am na kuy ruux ci ginnaaw te koy ruuxu lu ci bare bari France lay nekk boo leen déggee chef d'état-major bii ni la li fi fukki at dañu leen attaqué manam dañu songu ci afrique militairement motax ibrahima traoré dañ le diktal waxam ji muni lolu nañu ko jël au sérieux manam seen ité waratul nek xex ay kat rek mu ñu tudde ay terror manam ay kat waye seen jité légui dafa wara nek ci france ëllëg bu ñu ñëwee ngir songu ci leen france nak bu ñu Songusila, ngir songu ci la lu ci bari ci ñatt lañuy jaar man ñu bañ ñëw ak seen armée di la song si physiquement waaye li ñu njëkk def mooy la ak sa population bu fekkente ni sa population jóguñu a la ndax xam nañu ni population saa bu ñu la xeex amatoo légitimité ñu xam ni jaar ci li wala terrorisme muy agretel suñu gisee ni ñaar yooyu benn doxu ci ñu fexe ba la ak sa yi muy frontière ci maa moom suuf si yeeg yaa suuf si maa moom pétrole beeg yaa moom gaz bi bu ko defee ngeen xeex jàppante ba sonn ñu ñëw ni dañu leen di jubale ñëw jël la fa baax ñëw installé seen ay base militaire yor lépp nag occupé ko ak doole. bu dul lool nag fi ñuy jaar mooy ngemb benn opposant te lu ci bare bari lool buy am dañuy fexe ba jaxase ki fi nekk ak population bi ba ñëpp bañ ko su boobaa nag ñuy jëm xool benn opposant ngemb ko ngir ëllëg kooka man fee nekk seen surga ni ki sunu ex lu mel nii nag moo tax ku nekk ci nun war a bàyyi xel digg na ñenn ñi ni wax naan dañu war a dem lëkkaloo ji ak Russie lu mel noonu nag li ñu la ci wax yow mi nga xam ne yaa indi commentaire yooyu wala yéen ñi ko indi maanaam loolu lu mën a nekk la waaye nag gënul ci nun ñun ñii di sénégalais waaye ci sunu président bi nga xam ni dañ koo fal mu am légitimité totale ndax bu dee lu jëm ci wàllu alliance yu ni mel li ci jig militaire bi jigu ci ki nga xam ne dañ ko fal mu jaar maanaam falin wu jaar yoon ndax saa boo xamee ni mbirum alliance yi dugg nga ci rek mbirum alliance yi su boobaa da ngay daal di nekk benn cible ci keneen moo tax li gën mooy nga équilibré nekk ni ki Maroc ni ki Rwanda ku ci nekk ci ñooñu yaa defar sam réew yaa ko sécuriser te ba léegi lëkkaloowu ak kenn France nag ngir nga ci ñoom lenn rek la mooy fexeel ba am sécurité sécurité nag kenn mënu ko wax te yow ñiy dugg sam réew ak ñi ciy génn mënoo leen xam jamono ji nga xam ni ki ñu tudde Tahirou Sarr wax na fi xam ju am solo jooju daan ni réew mi ku fu mën a nekk war nañu laa xam yow la kan fan nga jóge loolu nag ci carte séjour la ñuy mën a jaar ginnaaw bu ñu defee ay recensement ba mu ko waxee ñu baree bari ci doomi réew mi ci biir réew mi ak ci bitim réew ñoo ngi ko doon sànni xeer waaye loolu mu wax muy dëgg am réew mën nañoo bàyyi nit ñi maanaam Sénégal mën na nekk réewu tiranga ku ñëw mu teral la ndax loolu du fi jóg maye añ maye ndoxu naan amoo fa tëdd ñu dalal la loolu mooy teranga waaye teranga du ko dawee cim réew rek ñëw ñu bàyyi ko mu dugg ndax ka dawee ci réew jóge fa ndax liggéey ko indi ci réew mi ndax banditisme moo ko fi indi ndax daa defu garawaal yi ba jóge cam réewam daw dugg ci sam réew xamu ci dara nga daane léegi nun réewu teraanga lañu léegi ku ñëw rek nañ ko bàyyi mu dugg te kii wax loolu la plupart mbokkum sénégalais mi bu amul woon fu mu fanaan mu xam ni kii ci dëkk bi la dëkk di doomi réew mi bu ñëwoon ni ko man de damaa bëgg fu ma fanaan mu ni ko déedéet du ci daal kon dafa am yoo xam ne dañ koy wax waaye da ngay xam ni lii maanaam manque de conscience la wala benn xalaatu manam xalaatu ku ku xelloo diku ndax am réew képp kum ko mën a yor fa nga xam ni fa nga mën a fa nga mën a sa bopp mooy fexe ba France mënuñu fi dugal benn mercenaire France duñ la fi dugalal ay terroriste yoo yëgut France duñ la fi dugalal bandi yoo xamul te lool nag ngir nga mën koo xam leen rek ngay def mooy équipe militaire yi équipe yi nga xam ne garder frontière yi jox leen ay drone jox leen ay jumtukaay yoo xam ni amul kenn koy mën traversé lii di frontière bi te xamunu maanaam yëgunu la niki itam ñi du duwaañ yi ñoo équipé leen dooleel leen waaye itam may leen atu ba mbooleem luy dugg ci réew mi ñu mën koo xam ñi ni service de renseignement yi ñu yaatal leen dooleel leen yokk leen ba ñu gën a bari waaye yóbbu leen fépp ci réew yi ñuy xam li nga xam ni mooy xew li yeneen di réew di préparé jëmale ko ci réew mi waaye itam di leen yaatal ci réew mi ñuy xam li xew ci biir réew mi maanaam lii di sécurité loolu dong la Russie yor léegi nag la ca des mooy ñu jël sunu doomi réew mi li ñu def ci ay création ñu jël ko jim ko jëmmal fexe liggéey ay pett muy li ñu tuddee ay bomb ni ko tubaab yi di liggéeyee yi ñu ci mën a liggéey ñu dem jëndi ko gànnaayoo ko te lii bu ko ñeneen xamee dañ la moytandiku ndax jamono ji nu toll gaa ñi ñaar dong la ñuy ragalante muy képp ku xam ni bu la songee ay dongam ruus bu boobaa ak noo mën a mel loo xeebu xeebu dana la bàyyi xel waaye képp koo xam ne amoo sécurité France li ñu njëkk andi mooy ñett yi ma la waxoon mooy terroriste rebelle wala ñu jaxase la ak saw askan. aw askan nag doo xeex ak ñoom waaye da ngay fexe ba saa su nekk nga satisfaire leen fexe itam ba am transparence liy xew nga di leen ko leeral. waa itam di leen dimbali am yërmande ci ñoom ndax lu mel nii moom la Russie xam ba bi mu demee di song Ukraine daa fexe moom ba lu mën a xew aw askanam daa fexe ba duñu mës a dëngoo kon lii mooy armo bi gën a fort ñi nga xam ne ñooy waa Iran bi leen tubaab bi bëggee déstabiliser ñu xool xool xamuñu fii ñu jaar dañoo fexe ba jaxase leen ak askan wa ba benn révolution bu metti amoon fa ba bëggoon a daane sax nguur ki nga xam ne moo fa nekk président actuel kon lii la ñu xalaat ni mooy souveraineté maanaam ñun ñu dox ak sunu bopp comme que yor nañ xaalis au lieu ñu koy jël di ko def ci ay infrastructure ñu jël ko def ko ci sécurité ba nga xam ni réew mi foo mën a jóge lu mu gudd guddi doo tiit benn yoon agression wala lu mu mën a nekk lii nag mépp réew mu am pétrole te defoo ko yaa ci danger. ginnaaw bi nga xam ni nag moom général bi menacé nañu kii di Ibrahima Traoré. nek chef de transition ba ca Burkina Faso tontu nako ci kàddu yi ñu lay bëgg andil moy dal ni légui xex bi yëmatul ci naka lañu def ba neutraliser ñi di kat yi waaye légui dañu wara préparer benen éventuelle guerre bo xam mo mu ngi bawoo ci yeneen puissance te moy menace bi nga xam général bi def nako wala bok chef d'état-major bi jëme ko ci réewi Afrique yi. te noonu mu def nag ku ko wax ak ku ko waxul ku nekk noonu nga war a def ndax réewi Afrique yooyu weesuwul ñun Afrique soowu jant gi nga xam ne ñooy nit ñu ñuul ñi ñun ñi nga xam ni ñun la yàlla dénk or ji uranium bi ñun la yàlla dénk cobalt bi ñun la yàlla dénk phosphate bi ak mboolem rek matière première yi nga xam ni France dañ koy soxla te amuñu ci benn. loolu moo taxoon France ñu koy compter ci juróom-ñaari réew yi ëpp doole ci àdduna te bu lii dana mujje nekk benn ci fanweeri réew yi nga xam ne maanaam ñu ni compter ci fanweeri réew yi ëpp doole ci àdduna wala ñu di koy compter sax ci juróom fukki réew yi kon nag lii képp ku ni da nga bëgg a développer sa réew te teniroo ko compte xamal ni yow yaa ngi mettre sa bopp en danger kon lu ñu war a bàyyi xel la ci sunu système bi waaye lu ñu war a bàyyi xel la ci sunu sécurité waaye lu ñu war a bàyyi xel la ci sunu njàng ak ci suñu formation militaire ak sur une sécurité interne et externe. L'opération militaire était une dimension. Je suis persuadé que dans quelques années, je ne sais pas si c'est dix ans ou moins ou plus, euh, nous aurons l'obligation de retourner euh, aider ces pays africains. Ce n'est pas euh, la Chine, la Russie et Wagner qui vont apporter des solutions durables aux très grandes difficultés que connaissent ces pays africains et leur population. D'entraînement, la guerre de haute intensité, c'est à vous, chefs, officiers militaires, prenez ça en compte. Commencez à vous préparer pour la guerre de haute intensité. J'espère que je me fais comprendre. Ce n'est pas uniquement du terrorisme. Ouvrez l'œil. C'est beaucoup plus que ça. C'est une guerre de décolonisation. Et vous avez dû entendre ces derniers jours certains généraux ailleurs qui ont fait comprendre que s'il faille qu'ils viennent avec leurs armées nous recoloniser, il faut qu'ils viennent eh bien, préparez-vous à la guerre de haute intensité. Soit ils viendront eux-mêmes, soit ils passeront par leurs valets locaux qui sont ici pour essayer de troubler notre quiétude. Donc quiconque, je dis bien quiconque, que ce soit le terrorisme ou toute autre armée qui doit venir troubler notre quiétude, nous devons nous préparer à les accueillir sur de long terme et intensement. Voilà pourquoi je vous dis, préparez-vous à la guerre de haute intensité. Et donc imaginez que ça se passe là, dans les 10, 20 ans qui viennent, et que ça n'aura pas de conséquences sur l'Europe, parce que nous vivons dans une sorte de bulle protégée par je ne sais quoi d'ailleurs. C'est tout simplement inconscient. Et donc je, pense que cet intérêt commun-là devrait un jour faire que l'Europe se décidera à agir comme une entité politique qui ira défendre elle-même ses intérêts, y compris euh, par euh, le moyen de l'engagement de ses armées.